léegi carte gi leer na équipe bu bees CNG muy bànkaas bi war a doxal làmb ji gannaaw ñaar fukki at ak juróom-benn 26 ans Alioune Sarr ak ay ñoñom ba ñu fi nekkee atum 1994 ba 2020 donte sax coow lu bëri jib na ci jàppal fii bàyyil fii dafa war a dem équipe bu bees la ñu war a am kon ak làmb ñu ci bëri doon sàkku équipe bu Alioune Sarr dem ñeneen ñëw. ministre des sports Matar Ba def na lu ni mel juróomi fan ci weeru octobre bi ñu génn équipe bu bees bi daldi di nañu koy samp waaye samp googule ñu ci doon séntu kenn di Mohamed ndaw Tyson doon nañ fi wax sax moom la ñu nar a nommé mu nekk président CNG waaye ñu bëri dañu lànk lu ni mel waaye ñu gis ne rek équipe bu bees bi Mohamed ndaw Tyson gisuñu ko ci beneen ñu gis ne kii di Ndeye Ndiaye Tyson daal nay dugg rawatina Pa Abdou Fall ak ki nga xamante ni moom mooy Yaxya Diop Yékini nekk conseiller euh, ci biir équipe bu CNG boobule ñu gis ne tamit am na ñeneen ñoo xam ne dugg nañu ci biir équipe bu bees bi waaye li gën a yéeme moom mooy ki nga xam moom la ñu tabb mu nekk président euh, di Bira ñu gën ko xam ci Ibrahima Sène moom moo nekkoon président CRG bu lutte mu nekk foofu ca Kaolack cordinateur des président de CRG gannaaw Alioune Sarr moom mi lay jëwriñ bii euh, di Matar Ba daal dina koy tabb euh, ci biir tabb boobu am na équipe boo xamante ni fi mu nekk nii samp nañ ko lu mel ni kii président bi bu ko weesoo premier vice président ki yor wàllub euh, lutte. traditionnelle avec euh, frappe di sa Ndiaye deuxième vice-président chargé de lutte traditionnelle sans frappe muy Mbapat de Yacine Ndiaye di Manga 2 ñetteelu vice-président chargé lutte olympique muy lu bees Isabelle Sambou quatrième vice-président chargé des finances Aziz Gueye juróomeelu vice-président chargé marketing communication Issa Ndiaye Ndeye Ndiaye Tyson Babacar Noël Ndoye waaye itam trésorier bi ki yor wàllu koppar gi di Abdoulaye Fall euh, trésorier adjoint Aline Diouf directeur administratif Ndiamé Diop adjoint bi di Maguette Sow président des commissions spéciales commission médicale bi docteur Thierno Abbas Ka moo fay nekk moom moo wutu ardo commission organisation Babacar Thioune adjoint di Cheikh Sarr commission technique ak coordonnateur des arbitres di Khalifa Sow commission règlement discipline Souleymane Boun Daouda Diop euh, commission juridique di maître Cheikh Amadou Ndiaye porte-parole Adama Bopp adjoint di Abdoulaye Ndiaye euh, commission des sages di Moustapha Guèye bu Fass kon conseillers yi gis nañ ci Salif Mbengue muy Gaston Yaxya Diop Yékini Pape Dufal Doudou Diagne Diecko ak ki nga xamante ni ah, mooy ñeneen ñoo xam ne tey dañu nekk ay conseil ci biir équipe boobu lee kon fi mu nekk ni liggéey bi war naa mën a tàmbali waa léegi laaj bi mooy lan Alioune Sarr dem na ndegam ba tey dina teg gët ah, ci li nga xam moom mooy CNG am déet ah den ci xam dara waaye tamit kañ la làmb ji di tijji loolu tamit ab question bu ñuy laaj la ñu yaakaar ne dootul yàgg loolu.